ci Afrique nag ñu bari kon ñoo faatu rek ci ay catastrophe lépp rek ne ñu nag ay milliards dollars ñu perte ko ci wàllu économie loolu kon fës ci ab rapport boobu rek nañu nag jéeg lu jege nag juróom-benn fukk réew ak ñaar ñu namar rek taxawal nag ay jéego ngir aar yooyu les risques ak phénomène climatique idi ñoo nekk nag ndawal ministre wooyu rek mbirum environnement addu ci micro assan Diop. Euh, waa danoo dajale. maanaam euh, ci sous-région bi ay réew yu ñu ci jël indi leen fii pour ñu mën a waxtaan ci rapport bi nga xamante ni ci rapport bi nga xamante ni GIEC moom moo ko defar ndax euh, téere boobu moom la ñuy wax euh, rapport climat di jeek GIEC moom mooy groupe intergouvernemental des changements climatiques du climat donc experts yooyu ñoom ñoom ñooy ñëw ku ci ne nga toog wax sax ñu dénne ay natt ay natt yi nga xamante ni. scientifiquement moom mooy wane ni climat bi mu ngi soppeeku donc nag bu ci nee dañ ko génne ci secteur bi ne maanaam climat loolu moom mooy groupe rapport boobu moom lan teg ci la ñuy sukkandikoo di xool fii ba 2014 lan nga xamante ni moom la mën a def pour mën a jànkonteeg jafe-jafe yooyu ak soppiti coppite yooyu nekk ci mbirum climat bi. léegi nag am na li nga xamante ni moom moom naan adaptation ak atténuation adaptation moom mooy nan ngay yow mën fexe ak yan nga mën a teg ci ay naal yu lay mën a naal mooy projet nga teg ko ba mën a jonkoonteeg jafe-jafe yooyu donc loolu nga xamante nii nag euh, tey jii ñi nekk fii jël document boobu war ci liggéey loolu la ñuy liggéey pour xool yan naal la ñu mën a teg ñun réew yi nga xamante ni ñun suñu économie moo gën a néew doole pour mën a jonkoonteeg jafe-jafe yooyu nga xamante ni changement climatique mi ñu koy indi waaw yooyu nag am na ci nga xamante ni mbënd mi la te loolu kenn du leen ko wax ndax gis ngeen Sénégal depuis 2000 ba léegi ni ngën mbënn mi gënee tar am na tamit li nga xamante ni moom mooy maral maanaam sécheresse ak euh, am na ci yi nga tamit xamante nag moom mooy feebar yu metti yi maanaam ay épidémie am na nga xamante ni dem na ba tool ci immigration nit ñi nga xamante ni dañuy jóge ci gox yi nga xamante ni moo gën a néew dem dem fi gën a naat pour mën faa amee dara li nga xamante ni dinañ ci mën a suturloo